ku ñuy dalal moom kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal rawatina la musique sénégalaise te moom it aussi ko xam xamee ko ci Papa Thione mën naa ne sax Papa Thione bokk na ci ñoo xam ne ñoom ñoom moo leen bëggal boppam waaw tey kooku la ñuy dalal muy Daba Seye dañuy jox kàddu yi rek euh, mu nuyoo après ñu dikk moom ci waxtaan Daba ñu ngi di la ziar. maa leen di fay bu baax di delloo ziar di nuyu waa Dakar Net di am mbégte tey war a def ak yéen taxaw seetlu ci Papa Thione donc di nii nag euh, ba fépp fu fan si Daba Sèye nekk di nuyu mbokk yëpp jërëjëf. mu ngoog euh, kooku mooy Daba Sèye te yaakaar naa ni lu leen andil neex na leen te tamit waxtaan bi tamit waxoon naa leen ko ci biir wax na dara du nekk lu dul Papa Thione euh, li ñu koy njëkk laaj mooy est-ce que Daba mun nañoo xam sa relation yàgg Papa Thione ak yéen ñaar fi ngeen jaar. waaw Papa Thione nag papa la ci man Papa Thione ku mag la woon ci man Papa Thione sama papa la sama xarit la suñu ndorteel mi ngi commencé woon artisan spécial tabaski am di DJ Prince def ko invité d'honneur def ma invité ma dem ci boobu ndeysaan ndey Mar Ndiaye Gawlu yàlla na ko yàlla yërëm ak papa Omar Basu yàlla na leen suuf euh, sedde seen kaw ñoom ñëpp ngi woon ci émission bi bi ma defee sama partition ba pare nag mu daal ni ah Sénégal kii ndaanaan la bés boobu jooyloo naa ko sax ci plateau ndeysaan ci lañ daal di xamante nag ma jël numéro topp ko rek. di ko di ko nemmeeku lu mu def boole ma ci. Mhm. yaakaar naa loolu leer na nee na noonu la def ak ah, Papa Thione. Mm. fa lañ jaar mais est-ce que mën xam tey ah, boo ak mel ni Papa Thione nga xëy aw est-ce que loolu yomb na. waaw Thione daanaan la école la. wax naa ko ki dem ci benn interview bu mag ma ni loo mën-mën boo demee ci école Thione Seck jàngat dangay am talent. moom ci boppam mu d'accord ne mën nga waaye bu yàlla defee nga toog ak moom faw nga jàngat donc loolu suñu borom a ko defal euh, yombul mais nit la koo xamante ni daf lay teg ci yoon ba euh, faay sax du feeñ waaw daanaan la woon. Mhm. est xam moom première son boo xam ne yow ci nga ko njëkk a aw. mooy jaaga. jaaga. Mhm. laa def 24 heures ak. Mhm. waa 2S ñëw seet si ma. ñëw yéen doog man mais avant dañ ma woon ni ma foog nga seeti artiste bu mag ma daal jël sama téléphone woo ko ni ko papa rt euh, te 2STV euh, euh, bi dafa am émission bu mag bu ñu def bu tudd 24 heures ak dama la bëgg a seet si mu ne ma des na ci yow kañ la ma ne ko suba mu ne ma ayca maa ngi lay xaar ma daal di dem seeti ko bi ma demee ñu ko fekk mu toog ci ëtt bi ma ñëw rek acapella mu ne waa xanaa wóoroo mu ne damaa woor de munu ma ndax dangaa woor mën ko damaa woor munu ma li nga mën munu ma ko woor ba pare di woy ca kaw ndeysaan bi 24 heures ak passé ci jour bi la sax woo ma ay mhm. vingt heures 20 heures ni ma te dama bëgg nga fekk ma studio Papa Ndiaye mhm. ndax dafa am benn al morceau bu ma def mhm. album la mais morceau boo xamante ni dafa laaj kër woo naa ci ay jigéen ñu ñëw aw mais ba tey adopté wul ak li ma bëggoon nañ essayé ji ñu dem Sido noonu laa ko awoo jaaga mu def opportunité bu mag jox mu génn ci voie daba sëy bu baax sax loolu moom marqué Sénégal yépp jaaga de si bopp nit ñi donc loolu mooy li nga xam ne njëkk naa ko def ak Papa Thione tey ba euh, ba doon wax tey qualité Papa Thione mhm. tey lan nga ñuy wax tey ba ñu doon wax ci qualité Papa Thione ak mën a waayam ak nga xam ne test la daan bind lu mu musaan bind rek njëriñ la tey lan nga mën a wax ci Papa Thione. wax naa ko léegi rek macha allah. nee naa moom xel mu jub ci woy. Mm-hmm. yàlla rek moo ko jagleel nit. nit nekk na woykat am baat bu neex te dañ koy bindal. Mm-hmm. nit nekk na woykat ñu koy dolli. Mm-hmm. pour texte yi di baax. mais koo xam ne lu ma woy téere la. loolu jagle suñu borom la woon. loolu mbiru suñu borom la mooy seet ku ko neex mu def ko ci moom. boole baat bu neex macha allah ba pare paroles yi mën a agencé. te agence morceau dafa jafe waaw jël lii teg fii mu jub nga jël lii indi fii mu jub loolu yombul woon ci yàlla may na ko Pape Thione ah, beneen bi mooy dëggu gi franc parler bi mu amoon lu mu la bëgg a wax noo mën a tollu dayo ba mën a am mu wax la ko loolu dëggu la malheureusement nag Sénégal dëggu googu bu amee ci nit duñ ko comprendre duñ ko xam donc euh, nit la koo xamante ni daal amoon na lu nekk ci moom lu nit ñi réere woon waaw comme ni nga ko waxee woon mu nekkoon monument nekkoon daanaan ci wàllu lépp. Mhm. mais ak fu mu toll ak yow quoi yéen ñaar fi ngeen jaar jaar ak comme ni nga ko expliqué nii. Mhm. bi nga déggee ñun la monument bu mel ni Papa Thione wàcc na liggéey. Mhm. jur boobu nan la la dikkee. am lu ma metti rek ba fi ma lay waxee nii am lu ma metti lool lool lool lool am naqar bu mag xam nga nit yàlla mooy boole. suñu borom mooy boole ay nit loolu moom mbiru suñu borom lay nekk. yeewooguma ci lal sama doom fàllu daal dawee feeñee ni ma yaay sa papa gaañu na ma ni bëri ni ko papa ba nu ma papa coon moo gaañu papa coon mu ni ma xaaral ma woon la aji mu mu mu nga laaj ko magam mu ñëw ni ma dëgg la yaay ñëpp a ngi koy statut nii ci internet bi donc defe naa ni sama jooy bi mooy yeewaa kër gi yëpp parce que ku sori la ci man yàggul dara su defee trois semaines ci la yem dama seet sama yaay caari azur jóge fa jubal këram direct ñëw ne ko fekk sama benn xarit moo doon def anniversaire ma ne ko papa dama mais seet nag dama bëgg nga defal mu ni ma nañ waxtaan jël suñu temps waxtaan man moom Assane Mbaye sama ki may aw mhm. waxtaan lu yàgg waxtaan waxtaan ndeysaan mu ni mooy nettali ko njëkkee fay ci aar nan ma bi ma njëkkee fay ci aar dama daw ko lu ban jëlooto <laughs> dem fekk sama yaay mu toog moom may ko ci may ci sam papa. daal dem nag jëndi tubéy ju rafet ak chemise bu rafet yàgg naa bëgg cravate nag. ubbil ma dressing am ni ma xool sa papa ni mu silusee. sori woon nañ. Mhm. sama papa la woon sama xarit la woon. yàlla na àjjana doon këram. donc bi ma yëgee ni gaañu na am naa trop betteel bu mag parce que yaa du lu woon lu ma yaakaar yaa donte dee day bette mhm. mais am na nit ñoo xam ni doo ko foog ci ñoom est-ce que mën nañoo xam yéen ñaa lan ngeen mujjee wax ak mhm. lan ngeen mujjee def waa projet CEDEAO bi lu ñu mujjee def. Euh, tu seras. mu nekkoon morceau boo xamante ni. dafa xaw a compliqué nag. tu mm. seras ndeysaan mu nekk morceau boo xam ne morceau bi yëpp francais la. mu ñëwee rek moom mbalak ma ni ma déggoo français rek. <laughs> comme nag déggoo français. Mm-hmm. da ngay toog ma la ko yox par benn benn nga koy dugal par benn benn nañ ko nañ ko dugalee système. Mm-hmm. ndeysaan yàggul dara. ma dem fa sama jëkkër daal ma daal di fay sama jëkkër comme ñoom ñaar dañuy tooñante jubóowuñu ma hmm. woo ko ni ko Mor maa ngi nii kër papa hmm. mu daal ni ma waa da dem kër papa doo tàggoo ma ne ko sama kër papa laa ñëw ma tàggoo hmm. ni ko wuyul ki li mu ni ko téye naa ko sax boo ñëwee ma téye la mu ne mu ne ko jox ma sa mbubb ma la ciy xool mu ne ko Mor maa ne sama mbubb dalay gàtt mu ne ko jox ma sa mbubb rek ma la ciy xool donc yooyu yëpp nekk ay souvenirs yoo xamante nii souvenir bu bu bu des si man la. Mhm. ma sekkoon ko ak sama papa. Mhm. Euh, dégguñu feebar fenn jékki-jékki rek coon dem na. loolu diis na trop ci ñun. Mhm. wallaay ah, yaakaar naa ni comme ni ko waxee nee na loolu mett na ah. macha allah dañuy def lu dul ak di la masewu encore une fois. mais li ñu lay laajaat mooy tey. Mm. bàyyi na fi doomam Wally Seck. Uh-huh. koo xam ne dafa jege woon papaam. Mm. mu ñàkk euh, ku mel ni Thione Seck. Mm-hmm. tey ba woon diggal Wally tey lan nga koy wax. dama ko jaali ji bërki dem ba parce que man kër gi fan yëpp damay xëy di dem. Mhm. wala su ma xëyul dem tamit su ma ñëw pare damay dem. loolu laa loolu mooy sama yëg-yëg ci sama tolluwaay ci papa Thione. Mhm. Euh, papa la même bu dul woon sax ma nekk artiste. Mhm. mu yàgg ñoo bégal rek war na tax saa yu ma xëyee dem. Euh, papa Thione dem na waaye macha allah ñu ñaanal waali. bërki dem dama ko jaali ji këram. ma gis yar bi mu àndal. Mm-hmm. xam nga <laughs> artiste bi du moom artiste bi bu nekkee nekkee sur scène. Mm-hmm. artiste lay wuyoo. nit ñi koy gis tamit hors scène bi artiste lañ koy woowee. Mm-hmm. mais dafa am leneen lu nekk ci ginnaaw artiste bi ci ma gis ko ci wàll nit ku humble la. nit ku humble la xam nga ku ci nekk sa aar ngi lay dundal. néew ak bari mais. ñiy seddal nit ñi tamit jukko yi nga xamante ne day refléter ci ñoom mhm. dafa am solo mhm. ma toog ak moom c'est pas la première fois mu yàgg sikk ak man lu baax xam nga jima ma ko mhm. ah, lu toll ni berseem mu taxaw daba sëy dangay dem taxawuma donc ñu dem ba pari sama rakk ji taxawuma loolu dafa foor dafa foor ci man mais ma gis ko nit ñu baax ñëpp ñu jàll si ko këram ak yar bi mu àndal mu ngi sonn gëmmentu mais buggul woon nit ñi sax ni sonn naa gëmmentu naa xam nga nit ki da nga koy jàng nga xool kii ban genre nit la mhm. waaw man wóolu naa ko ci ginnaaw Papa Thione donte am na ay mag mhm. mais bu ñu wax wóolu nañ ko ci ginnaaw Papa parce que mhm. aar bi nga xamante ni baayam ci la ko nàmpatal mu ñëw fekk ko ci taxawe ci ni ci taxawe bu Papa demee rek wóolu nañ ko ci Euh, seede yi rafet la ci waali mhm. ñu gis tamit ne artistes yi mhm. comme tey ñu ko suñu papa coon defee génn àdduna mhm. ñu gis ñëpp teew sànq rek fa lañ jógee ñu gis fa euh, délégation boo xam ne ki mu woon yónni woon euh, président de la président Abdou Diouf boo xam ne délégation boo xam ne kii moo ko doon kii la àndal El Hadj Mansour Mbaye léegi tey ba doon wax artistes yi comme ni ñu nekkee ci show bi si fi di xam nga di buuxante xam nga ku nekk di classe moromam tey lan nga yeen mën a wax xam nga loolu <laughs> liggéey bi moo ko laaj des fois liggéey bi dafay laaj loolu mais nag damay bëgg ni jiital xol yi jiital ne bés day ñëw ku nekk tëdd ci bàmmeel yàlla na yeex nag mais artistes yi amul bu bon ci sama bopp laa koy xam artiste bu ñu tuddee artiste xol bi bon amul munoo di bégale ba pare di am benn ñol ñol ci sa xol mais des fois dafa am circonstances yi am yoo xamante ni mooy waral nit ñi di gisee. Mhm. mais ñun artistes yi réerowuñu mhm. waaye ñu ñaaxaat rek gën a dolli. Mhm. wax ni deewu Papa Thione ni mu bettee mu nekk kilifa nit nekk nit ku mag. ko àdduna yëpp xam bu yemoon Sénégal sax nga ni tan waaye àdduna yëpp xam Thione Seck. ah ñu dañ ciy jàngaate dara rek liñ ciy jàng mooy. fexe gën a rafetal xol yi. xam ni loolu noonu noonu ak nit. bu dee ñëwee nga bàyyi lépp. lu noonu am. su dee ñëwee rek sa xol ak sa xel. yëpp dina ci li nga mës a ak nit ki li fiy tege rek mooy wéy ji dem ji. Mhm. donc ñuy waajal nag loolu nekk ci jàmm. Mhm. dox ci jàmm. Mhm. waxtaan ci jàmm. maslaayante àdduna ci jàmm. dafa am solo. parce que dee moom du tàggoo te lu du tàggoo jar na sóoraale. waaw waaw artistes yi nag banuñu. ñëpp benn famille lañ Sénégal rek moo tax ñuy woy Sénégal moo tax ñuy bégale. Mhm. Ah, destin la mun ñu ci dara. Mhm. mais nag ñu jiital ni bés. te man li may jaaxal wax naa ko démb rek moor ma ni ko. Mhm. tur boo fi mën a am soo deewee jëf ji rek moo fi des. waaye yow nit ki moom fàtte na la. jour bi ñu la suulee. ba woon la ginnaaw waxtaan wi day commencé. ah mi commencé. fàtte nañ sax ki ci suuf la na nekk ci suuf donte mën a koo xam. mais yor kurus di ñaan di julli di ñaan wàcce kaamil ñaan mm-hmm. fàttaliku ni bés ngi ñëw ñu def la comme moom dafa am solo waaw ah, comme ni ko nu ko waxee nag yaakaar naa ne loolu tamit message la ci ah, xale yi doog a juddu bëgg waay comme ni ko ah, Daba say waxee mais li lay tëkka laaj mooy Daba lan moo la gën a marqué ci Papa loo xam ne jii boo ko xalaatee day nekk ci yow téere Papa Thione li ma gën a marqué ci moom mm-hmm. mooy bi ñu defee moor sa jaaga ba pare mm-hmm. ndeysaan nañu def Mor sa jaaga ba ma ñibbi si sama kër ñu xëy lendemain <laughs> moo ma téléphone ni ma. Mhm. waaye yow mii xale bi man ko am ah, mu ni ma. ndax di nga guro ma ne ko mhm. papa du guro lan ngay def comme loo xamante ni boo añee ba pare. Mhm. dina nekk sa xel. ma ne ko papa sax du ko naan ay xale bi yàlla yàlla wéral sa baat waay. <laughs> ah Sénégal de xam naa ni. danañ la xam de. wax boobu nag dama koy sóoraale di ko doxaale ndax ki ma ko wax du ko ndaw. Mm-hmm. tout récemment rek def nañ émission bu tudd Balago TV. Mm-hmm. defe naa ci biir février bi la. Mm-hmm. ci février la. yàggul dara lañ ko def. man ak moom Sénégal sama doom jaa nii kenn du ko yab. Sénégal sama doom jaa nii góor du ko fontoo. xam nga yooyu nga dund ko koo xam ne ba muy woy yow fan nga nekkoon. opportunité yooyu mu la doon may. Mm-hmm. amoon këram sens interdit heure bu ma neex laay jël sama téléphone woo Papa Thione mm-hmm. bu jëlu ci saa si sax lu muy def bu pare daf may rappeler sama doom. Mm-hmm. sama doom rek Daba Seye sax raar na lu ma ko doon dégg ci Papa Thione sama doom rek. waaw kon kooku boole woon na ma ci boppam. naqar bi ma am. ci mille 2021 bi yal na ko suñu borom yemale. Mm-hmm. dama ñàkk bàjjen boo xamante ni moom ak sama papa ñoo bokk ndey ak baay. Mm-hmm. muy yaayu Serigne Saliou bu seex Béthio. nekk bàjjen boo xamante ni sëy naa ci sama kër 14 ans. Mm-hmm. amul semaine buy jot ca nduggam du ñëw fii ci man. wala mu toggee këram. indil ma wala mu suppee këram indil ma. nga ñàkk kooku di ko jooy noppeegoo yàlla jëlaat koo xamante ni. papa la. xarit la mm-hmm. donc yàlla yàlla yemale fii lépp ak euh, ñi làkku ñëpp mm-hmm. te sax doo leen xam da ngay ñaan suñu borom jéggal leen ci yërmandeem mm-hmm. mm. ñàkk koo xamante nii dafa foor ci sama xol waaw su ma nee la nii nii nii nii bu ma la woyalee du neex su ma la woyalee du jóge ci xol te damay bëgg saa yu ma koy def muy jóge ci sama xol di dugg ci xolu nit ñi waaw comme mi ngi noonu nee na moom waa mënul way instant yi parce que xolam moo fees affaire yooyu noonu léegi kon xam naa ni euh, émission bi jeex na lu ñu amoon ci ay minutes euh, jeex na tamit dañ lay jox juste rek nga wax sa dernier mot. waaw dernier mot yi rek mooy di santaat yàlla rek. Mhm. santaat yàlla bu baax ki nga xam ne bu lay indi du la tàggu yëgalu la ci bu lay jël day fekk yaa ngi nekk ci lu neex. Mhm. waaye lu muy lu mu lay fekk rek na fekk mu neex suñu boroom. Mhm. di santaat yàlla rek yàlla daal ñu ngi koy ñaan Papa Thione mhm. yàlla nañu ko yóbbul ci àjjana yi gën a sori Papa yàlla bu mu dajee dara lu mu ragal moom ak sama bàjjen walu yàlla mhm. di ñaan senegal jàmm tamit mhm. xol day fees di tooy ba doo sax mën a wax wallaahi doo sax mun a wax te mbas mi ñuy ñaan suñu borom jële ko fi mbas mi moom di joxewaat rek nit ñi di wax ni tey bàyyi nañ lépp euh, defe naa ni état état d'urgence bi yëpp dindi nañ ko. Mhm. mais ñu gën a fagaru gën ci bàyyi xel. Mhm. masque yi ku ko mën di duble sax par deux nga koy def. Mhm. di yor gel ci sa sac. parce que feebar mi ngi fi ci am na. ñu gën cee góorgóorlu rek. jërëjëf. waaw jërëjëf. waaw mbokk internet yi dakarnet point com ni ngeen ko gisee noonu la tey yaakaar naa ni. sees nañ koo xam ne war nañoo seet si euh, waxtaan ak moom ci Papa Thione gisoo mu wax ci moom macha allah loo xam ne tamit dara du ko dindi moom it dañ koy gërëm di ko sant parce que bi mooy ñaari yoon ñu koy woo boo xam ne ñun sax ñun ñoo xi tardeel ñun ñoo xi tardeel tey ñun dañu amoon yéene def ko suñu borom tey la ko dogaloon moom dañ koy ñaanal suñu borom yàlla guddal fanam euh, wéral baatam ci barke Seydina Muhammad tundu yi sama caméra maam di fàllu Mbaye jaajëf